asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi teewlu yëpp si turu jëw li ñu seera Fall bi di seen ñoom ñu Fall mu seen ñoo du ay cantam ak i ngërëmam mu ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall jottali it ay cant ak i ngërëm mu jëm si mbooleem taalibe yi nga xam ne seen yaakaar dara jëm si maam Cheikh Ibrahima Fall ah li waral jotaay bii nag mooy sëriñ bi dafa am ndigal lu mu jot mu jógee ci Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne moo jëwriñu Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñëw ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi wax ne ndigal loolu yi ko Sëñ Mountakha jox moom lay sàkku gaaral ko mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall loolay sababu ñu bëggoon képp ku yaakaar Cheikh Ibra tàmbalee ci buntu kër Cheikh Ibra Fall yi ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibra Fall dale kër maam Saliou Fall Cheikh Mouhamadou Moussa ba ci kër dem ko ak mboolem ñi nga xam ne ay seex lañ te bokk si nekk si kër maam Cheikh Rafal Serigne Touba Cheikh Rafal gërëmoon seeni maam ak seen i ak mboolem taalib yi nga xam ne yaakaaru lu dul Cheikh ak bunt buñ si tabbee Serigne baa ngi leen di woo suba dimanche ci kër maam Cheikh Rafal gii nga xam ne moo nekk jannatu maxwaan si juróomi waxtu muy 17 heures muy 5 heures si ngoon ngir gaaral leen ndigal li nga xam ne bàyyi koo na si Cheikh Modou Mountakha te egg si si moom mi nga xam ne mooy jëwriñu Maam Cheikh Fall kon daal sëriñ baa ngi sàkku képp ku dégg sunu kàddu gi nga jottali ko sa morom ngir bu ëllëgee incha allahu ñëpp commencé daje fa su ko defee mu jottali ndigal loolu li nga xam ne moom la ko sëriñ Mountakha jox si dëkk bii nga xam ne dëkk bu tedd bii di tuubaa su ko defee mu yëpp xamandoo ko ba kenn ku ne bu jógee taxawaay yam sa war a am mu am ko loolu la sëñ bi waxoon ma jottali ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.